Je suis tudd Ndeye Soukeye Gueye di yëngatu ci politique nekk ci parti bi l'Alliance Alliance pour la République mais parti président de la République Macky Sall xaw naa fa aussi tamit parce que ngi depuis le 18 décembre 2008 donc mun naa 15 jours après la création du parti Je suis maa ngi ci di yëngatu soutenir le président de soutenir le parti qu'il y y une président une mission je ba muy Inch'Allah. sorti parce que bu ñu politique qui dit politique di kuje on la aussi tamit ay ambition yu daje la ba ñu du comité électoral bi a un problème montage mais Dieu a fait que nous nañu investis. investiture yi a vraiment établi tout bon romb chance yu ñuy am pour gagner gëm na ne dinañu gagner buñ ko gëmee ñu ñëpp ñu àndandoo gëm ko unité am ñu gëna jappalé suñu biir parce que ça, déjà sama gars yi commencé na ci conscient parce que comme ni le ministère no Alassane Sall que euh, di militer dans la zone ouest dans la commune d'arrondissement ouest des tête de liste proportionnelle les lu amont au niveau de la zone est jébbal nako Abdou Mbow déversé na ko Abdou Mbow déversé na ko si déversé Abdou Mbow Abdou Mbow également limu amone au niveau de la commune d'arrondissement ouest jox également docteur Pape Amadou Ndiaye mi tête de liste majoritaire ak le ministère no Alassane sal mi jité la tête de liste proportionnelle. zone nord également aussi non la demain, te defe naa ne ñëpp conscient na ne que war nañoo gagner les élections. élections dara au moins au soir du 29 juin une victoire Bobo, ñu jébbal ko suñu secrétaire général de parti le président Macky Sall. Mère moom mënul Mère ah maire mënul la déception de fara di mais je boo ko xoolee macha à APR xëy na doole bi mu am des milliers et des milliers de militants investiture jot problème 70 postes xëy na fait mu am ñuy à ak ñu ma profite de cette occasion de leur lancer un message de leur wax ne nous décourager de nous roy parce que nous, naa ne ba tabax parti bi bokk naa si pionnière nous avons fait, jigéen bu organiser président Macky meeting 2009 j'étais la seule femme au niveau de la commune d'arrondissement S pour battre campagne au niveau de la coalition bi ñu nekkoon taxul ma doon conseillère te ñoo ngi nii defe de su cinq ans après ou quatre ans après ñoo ngi ñëwaat dëgg ma laat ay élection te doonu ma mais ba tey du ma tax découragé parce que le ma gëm moy sama parti le ma gëm moy le président de la république votre sanction amul njëriñ ne ñëpp gëmandoo le président te ñu jéem terre un peu suñuy ambition personnelle ah mais y'a na dinañ gagné parce que kuy dem guerre quand même ni doo dem guerre nga naan dañ may gagné jàpp naa ne liggéey nañu liggéey boo xamante nous war na noo gagné Idrissa Seck xëy na sax yaa ko fi tudd bugguma sa tudd turam ah aw ma habitude sa di tudd turam parce que man jàpp naa ne Idi ba ko askanu Thiès vomire yàgg na te APR moo war a def te jot na liggéey loo xamante ne xëy na tey waa Thiès mën nañ koo avaler Idrissa Seck yaa may wax waxam ma ne la bokkuma xëy na ñay tax di ko tuddee le maire invisible ña koy tuddee bateau ivre man de su koy duma ko tuddee loolu

il dit am a tellement obsession le chiffre 4 boo ce ne yàlla su suñu boppam moo ko mbas yàllaa ko nax ndig réyam Yalla ko jéppi yàlla moko mbass mbas ndig l'a wax 4 4 44 ko bu bax ba def meeting d'investiture en 2012 c'est élection présidentielle moko organiser également un mercredi 4 il dit dem ba autoproclamé wu ne le 4 quatrième président du Sénégal Idi Fort président Idi quatrième président du Sénégal Il y ko le gi toog yaru jàpp njàmburam ñu le ko mu nangu ne tooñ il ko dem du Sénégal président du Sénégal ànd yar ànd ak partem tuddee ko APR Yakar, parce que le final, le Yakar, Moi, espoir kii mu taxaw am def ne may quatrième président yàlla mbas ko yéen yéen ay toog di wax waxu Idrissa Seck Idrissa Seck yaakaar naa ne moom moom bu tëddee wa nelalawatul parce que conscient na sa la mu def conscient na su lu déggatoo ko mu waxu station waxu station waxatu ko déggatoo ko si yenn versets yi mu daan def ces interminables versets yi nga xam ne moom la daan amadouer les Thiessois moom la daan amadouer les Sénégal comme nous ma ko il a le don d'embrouiller les gens Idrissa Seck dembe big dégg naa ko bumi attaquer le président Macky mom dafa am lu ko yàlla cëralee cëram la nako ko jël ma nee naa leen Idrissa la wessu don un ministre de la rue il ne rate jamais l'occasion de se taire yàlla ko Nato, mu wax kat day wax ñey gérer gérer mais xamna na munu dab président Macky du moromam du mapandoram. defe naa ne président ba ko rewé yag nak le quatrième président bobu mu taxone muy yotu am luñ ko si am lu mu si xam di berne sénégalais avec ses euh, sourates ses interminables sourates Il dit mënul gobé, mënul avaler pilule boobu que la mu après a approprier dama la bëgg xamal la euh, sëy cëru doomu adama doomu adama mënu ko nangu parce que nous ku déjà ce destin Il dit na y a un destin présidentiel mais n'y a pas. ko ko indil c'est qu'il ko teg mooy fierté. mais il gën a une ne obsession boobu mu am a réaliser wu du se réaliser Donc doo ko que quatrième président Il naa fait en 2007 ba muy génnee ses CD1 CD2 amna luma lu mu waxoon Idi moo moo yey di rayante fu mu ne dina rayante mo taxawone en 2022, fi ba 2022 bu ma doonul président damay bàyyi politique. 2012 mu autoproclamé wu quatrième président de la république du Sénégal Yalla nako ko ah, ah ah doomu Adja Kumba Timbo bii mooy doone quatrième président te defe nané ne na ci ay bëtam mais xolam moko ko yàlla mo mënu la gobe loolu taxawoon en 2007 suma ma moné en 2022 bu doonu président day bàyyi politique demna na bay méngale boppam avec la vie du prophète sallalahu alayhi wa sallam taxaw à l'âge de 63 ans en telle année su ma doonul nangam damay bàyyi 2004 2012 romb na ko mu ne quatrième président la wax 5e président lu ko desee kon mille 2017 2017 rek moo ko desee te xam na ne du ko doon dama la ne sëy Idi du mës a doon président xëy na nag wax a ko desee bàyyi ko muy waxantu muy kebatu ba ñu annoncé kan ngeen dégg dégg Idrissa Seck Thiès xaritu benn bakkanam gaañu na fi yal na ko yàlla xare àjjana di gisu leen ko fi tabaski gisu leen ko fi korite gis leen ko fi dans des manifestations religieuses màggalu Touba jàll na gàmmu Tiwaawan jàll na gisu leen ko mais ban ko annoncé ba mu amee écho président de la république Abdoulaye Wade day ñëw salaan naaw mel ni malaaka na ñë cëpp Sénégal taxaw di commencé kebetu taxaw di kebetu kenn faalewu ko parce que ma nga doon njëkkanteeg euh, euh, maître Wade ku mel ni maître Abdoulaye Wade nag moom xëy na le may wax si moom du bëri sama maam la ku la par ndik parce que mu nekk sama moromu pap ñoo bokk defe naa âge bu ñu judd xëy na wax ne dafa wàññi ay atam ma di ko ne ko ne ko sama papa ba mu 72 ans la génn Yo, ba nga 72 ans la la yalla cëral def le président du Sénégal mo defé 12 ans ké mënul décrier bilan ne dafa négatif à 100 pour gestion bi doon gérer dëkk bi tay mom la ko ñëpp méré mere askan bi tax ko juk dara tax ko juk mais ñëpp xam nañ ne fa doomam nekk tay té lu dal doomam moo ko ko sama maam nag dama yaakaar ne su amoon imaan tuuti am lu muy fàttaliku am lu muy seet kii dem ba am 72 ans yàlla cëral la àggal la si station président bi nga xam ne Idrissa Seck ngay rey boppam boobu ba léegi rek bu àgg fa yàlla na ko mu te du ko doon laa la wax wadd heure bi waroon na ko fekk tey mu def benn li naan une retraite spirituelle toog yor kurusam wéer da te xam ne nattu Yalla moko tek suñu man sama papa 72 ans le guen aduna mom 72 ans la falu ñu ag ci station président de la république nga def fi sa 12 ans géré ñu gagné la nga dem tay sa dom ko yalla tegee bi natou na jàpp li natou la bien vrai que na moko ko def moko ko yobé hein mo taxaw ne ko ya dàq jang ci Sénégal ya gën ci askanu Sénégal def ko ministre du ciel et de la terre mu jël alalu askan bi yàq ko. tey ñu ngay jiiñ ne président Macky moo ko jàpp président Macky yoonam new si mbirum Karim nenu bàyyi justice mu def mu def yoonam je n'ai rien contre Karim fi mu nekk yéenewu ma ko mais xëy na lu ko dal tey na mere waajuram bu góor seen ñàkk conscient moo leen yóbboo li leen am li leen dal tey parti message bi ma leen di lancé xanaa lancé waat leen ko parce que defe naa loolu dama ko yàgg a wax bokk naa si militante yi nga xamante ne Il na a woote unité Il na a woote unité parce que faut que nous nous ñu Nous devons décrypter cet esprit de renouveau que le Tout-Puissant a essoufflé sur notre très cher Sénégal dama tout à l'heure le quatrième président ma wax la benn affaire président ñu ngi koy ŋàññ jamono passé taxaw ne ko fii la taxaw programme yoonu yokkute mais defe naa ne ku mën a décoder dëgg aussi tamit si benn côté di nga xamante ne yokkute mooy yokk mooy émergence donc je ne vois pas la différence ma di la xamal ne la président mais lance message askanu Sénégal di leen wax ne yàlla ku mu dig lem faw mu saxal la kaani ñu ngi dund dëgg la situation bu metti xëy na yombagul citoyen si ñoom góorgóorlu yi fi nekk mais yéene bi le président de la république Macky am si ñoom am si askanu Sénégal defe naa ne buñ ko muñalee atteindre suñu objectif. nee naa la quatrième président bi ñoom Idrissa Seck dañu xëccu yàlla def ko si président Macky Sall incha allah l' émergence du Sénégal passera inévitablement par le quatrième président de la république te du kenn ku le président Macky mais lancer un appel sama camarade de parti di len wax unissons nos cœurs unissons nos cœurs et qu'au-delà des intérêts personnels l'on pense aux intérêts nationaux te inshallah mais may waxaat tamit di ñaan doomu ties di len wax ne leen surtout nañu ñu moytu kii woo doo làmmiñam hypothéquer sen avenir depuis des années nguur xex ak mom day metti tay président bu jëlee jël ay doomu Thiès jël ki ministre des infrastructures du désenclavement yor lo xamantene tay nommé ko muy doomu Thiès jël ministre des forces armées yor lepp luy karangé Sénégal mu nek doomu Thiès président de lu dara gis fi ko melni honorable député président de l'Assemblée nationale Abdou Mbow donc ñuy ñaan wa Thiès xamantene le leen président wuñu nañu moytu Idrissa Sek du président du monsieur du président de mu de tardal Thiès Et Inch'Allah, sous peu de temps le président dina ñëw Thiès té defe amna am naa aussi dina relancer toutes les activités qui sont en en